asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokki jullit yi nga xam ne teew ngeen fi yëpp yéen bokki taalibe yëpp yéen bokki taalibe yi murit maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant kilifa yi yëpp yëpp yëpp amul ràññeele amul xaj ak seen ñëpp maa ngi leen di sant ndax. yan na nanu ko yàlla fayal ndax kat sagal na der bu ñuul.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 yéen da ngeen di wutal président Senghor noonu kii li mu wax sëriñ la waxu sëriñ la wax lan moo ci nekk lu ngeen di censurer man dama koy passé ba ko sëñ Abdou Lahad déggee mu yebal Moodu Maamun Ñang mu ñëw fekk si ma mu jox ko ñeenti téeméer ni waxal Bachir ni ko sëtu Cheikh Bou Kounta de doomu sëñ Bamba bàyyee ma leen dégg naa li mu def nag li ma li loolu mu def de rëy na ci man rëy goo xam ni mënoon naa ko jox xaalis bu baree baree baree baree bare ndax teraanga gi ma defal jaral na ma ko waaye ñeenti téeméer laa ko def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 ba bi mu fi jógee fa tabaarakallaa ñëpp wekk kër yi diine yi wekk lislaam bi dafa am xam-xam am xel fa tabaarakallaa am njàmbaar fa tabaarakallaa nekkam fii di xalifa sëñ Touba tax na gouvernement bi gën a gën a wekk kilifa diine yi waaw ndax melo ko yàlla joxoon mbir mu teew ci kanam walla mbir mu xew ci àdduna dana ca wax mbaa mu def ca loo xam ni ñëpp dañ naan fa solo sunu xaalixi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 xam nga ne liggéey na liggéey boo xam ne nii ñun ginnaawam dañ doon wax ni ku ñëwati Touba daanaka da ngay toog rek ndax sëñ Abdoulaat liggéey na lépp. sëñ Abdoulaat day jëmm joo xam ne ji yàllaa ko baaxalal boppam ko fit woo xam ne kenn yoru ko ko xam boo xam ne bii kenn yoru ko jox ko may goo xam ne gi kenn yoru ko. waaye sëñ Abdoulaat day géej goo xam ne ku mu jurul wala jabootewul sa xam nga ni.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 yéen ñëpp sàmm ngeen te kuy sàmm nag dinañu laaj ëllëg li nga doon sàmm lu mu doon sëñ Abdou Lahad yet waa dëgëroon waaye du soxor mukk sàmm nag bu yet wa dëgëree nag wi daanu bare jamar waaye daanu jofi moo am solo kon yan nañu ko yàlla fayal yàlla boole ko nag ak Serif Serif Abdoulaye Thiaw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 mooy seen euh, euh, euh, mooy sama baay mooy seen ndijaay sëñ Abdou Lahat ñëw ñu jébbalu ci moom ci kër Ablaye mu di leen seet si seet si googa itam ñooñu ñooy sunuy bokk mu ñëw Ablaye Mbay sëñ Abdou Lahat jël na doomam ñu di ko wax Mara Mbay Góora Mbay Eh, sëñ Abdou jër na doomam ñu di wax soxna Kiné ñoo ñee ñooy suñuy bokk kon sëñ Abdou daa ñëw dugg suñu biir kër ba noppi nag fekk si noo ngaa xam kër Saliou Ndiaye bi mu ñëwee ñu ne sëñ Ablaye doomi sëñ doomi sëñ Tuubaa day mi ci dëkk bi mu ne ah ñu ne mu ne waaw waaw mu ne ah kooku de kon dinaa ko siyaare ca nga ak mbaax ga ak yaatu ga daa di jóg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 mu ne ko sëñ dal baa ngi ne mu ne ko ah eh, sëñ bi dal ko ah, sëñ bi dama fay jaaroon doon la jaal sëñ ji bi rek te bëgg a dem jàll Dakar mu ne ko ah, loolu rek di mënu la fee jële mu ko ah mu waaye mën naa laa dimbali nag wax la loo xam ne soo ko waxee dinaa la bàyyi nga dem ma jàpp ca loola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 rek ñu ñu ne ko am na ku lay nuyu ñu ne kan la mu di sëñ Ibrahima Seck comme ni Maguette Diagne waxoon exact mu ne kooku damaa yaakaar ne danga may nax daal di dalal sëñ Ibrahima waxtaan na moom ni ko moo sëñ bi doon andi fi mu ni ko sopp la rek nga ni sama xel lool ma ne duma la fekk Tuubaa damay bàyyi ba yëg ni yaa ngi Tuubaa belal ma fekk leen ziar la ndokkeel mu ni ko fii de ku ma fekk man Abdoul Ahad dinaa gëm ni man dong nga la tax a jóg boo ma fekkee Tuubaa nag maa ngi ko bokk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 kon lu ma xëy mukk naa njaboot gi ñëwoon nga fi bi kon lu ma leen di wax bu ma xëyee mu toog tur ni dënn ba mu yàgg mën ko dimanche bii di ñëw bu dellu si dellu si dinaa la gane si Seydina ma mooy fi màgget bàyyee Seydina ma daal xëy na woo njaboot gi yëpp xamal leen sëñ Abdou Lahad Mbacké nee dina fi ñëw dimanche bii di ñëw bu dellu see ba dellu saat ndax ñëw na fi bii su ma joxul woon bisit dama ko bàyyi mu dem nag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 ñu doon jël participation waa présidence ci projet bu ma amoon projet un milliard et quelque bu ma amoon maag Bamba Crespin nag ñëpp présidence ñëpp jox nu seen participation bi ñu joxee ñoom ñëpp seen participation mu nekk addiya ju takku ma ni Bamba kan dem yóbbul ko sëriñ bi ñu ànd ñëw ñu yegg si Touba.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 joxe naa sa dërëm a ngi ci fii xaalis bi ñu ne seen participation la ci projet bi nga am mu ne ma projet bi un milliard et demi la woon mat na un milliard et mat na arrêté na jeex na tàkk beneen yoon <laughs> ma ne puisque nag moom moo ne ni woon nit dafay am fulla ak fayda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 ñuy ñibbi dugg ci oto bi Bamba ne ma yow da ngaa ñeme Serigne Abdou Lahad ma ni déedéet ñeme ko mukk de lim ma jàngal laa appliqué ci moom. ma gis ci moom laa biir ak ragal ragal lan ragal tooñ Serigne Abdou Lahad ragalam yépp ragal tooñ nit la.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 di ko def ñaari xuuy ni sëñ Ablaay jëlal mu la ci gënal mu ci jox ko sa mag bi teraanga la bu war a dox suñu diggante yemul ci loolu bi nga xamante ne dem na bay bëgg a génn àdduna yéen ya mu yónnee sëñ Ablaay yow defe naa xam nga ci dara mm-hmm. yow sëñ naa sàll mm-hmm. ay mbaaja nga ca mm-hmm. ab dara nga ca kurusaa nga ca ak satalaa nga ca kaalaa nga ca mu ne nee leen sëñ Ablaye daal ak kaamilu alxuraan sëñ nee leen sëñ Ablaye daal lii daal mooy mooy mooy ci ci ci man kere ba mu ñëwee sëñ Ablaye woo ma won ko man ko ah yow de sa xilaafa sëñ Ablaye taxawal na ko mun ko lii ngay gis mun ko di toog jamono ñu ne ni yaay yilif ñëpp loolu amul sëñ Abdoulaye du ko defan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 xëy na xanaa yàpp ngeen dul am waaye sax yàpp ngeen ko am ndax ñi ngeen dëkkaaleel ak seen mbokk waaye na leen wóor ni am ngeen tabaski ndax yent yàlla Muhammad de ca yërmande ga rendi woon na ñaari xaaf ni bii pour man la bi si des ci pour ku nekk ci sama xeet wi te amuloo tabaski bi wa yowmal am kon yow mi amul tabaski sax yaa ma woon gan yaa ma war a gën a dal xel gën a dal xel ñi nga xam ni am nañu tabaski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 te xuloo sëñ Abdou du dara dul wax dëgg xuloom wax dëgg rek euh, ku déggoon alquran la sëñ Abdou déggoon na ko lool ba tax na ñaare bu masaan firi ay ayaatul quran yow da ciy jëlee njëriñ loo xam ni ndeke yow dégge woo ko woon noonu gis nga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 mu ni ko balaa walakin li naqal bi gëm naa waaye dama bëgg lu dëgëral sama xol moom mooy mooy saayur aaya bi sëñ Abbas ni ma foofu da nit ñaa ngi koy firi firi bu bon naa mu ni ma yent yàlla Ibrahima xolam du rëgg-rëggi mukk li yatmaina qalbi mooy lu dëgëral sama lay ma ni ka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 wax dan alihi xaqan fi tawréeti wal injiili wal quraan yi dal cay teg ne nag wa man awfa bi ahdihi min allahi loolu kon dugal nañu ci biir daal di daal di door a wax nag ne fastabsiroo bi bañitumu li si bàyyatu bihi bëgg leen ci jaayante gi nga xam ne jaayante ngeen ko ngir mooy wasaali ko wal fawsan asim door a wax ne la xadara li allahu anil muminina isi bàyyi na ko taxata sa jërëti kon loolu mu wóor leen cëng ne jaayante gi lu am njariñ la lu wóor la lu am maanaa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 Euh, la yàlla doon wax euh, yonent yàlla Idrissa na waskur fil kitaabi Idrissa innahu kaana siddiqan nabiyyan wa rafahnaahu makaanan aliyyan euh, sëñ Abdoulaye nekkoon na nit ku sincère ku dëgg boo xam ne nii moo taxoon yàlla doon koy yëkkati di yëkkati turam di yëkkati ay jëfam di yëkkati ay mbaaxam mën a tam tubaarkaala gis nga ko loola loola mooy yooyu te siddiq nag moom moo nekk moo sës ci yonent yi ulaa'ika allaziina an'ama Allaahu alayhim min nabiyyiina wa siddiqiina wa shuhadaa wa saalihiina wa hasuna ulaa'ika rafiiqan zaalika al min Allaah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 lu lu ñu jiite ci senegal rek mën nañ koo jiite dara du yëngu kon nit bala nga bu ñu nee nit ku baax bu sa xel rafetee dangay ngay bari ay àndandoo ay xarit boo baree alal dangay bari àndandoo waaye bu sa jikko rafetee nga bari turandoo. exemple bi bi muy jàppale woon Abdou Diouf te nit ñi di wax lu tax sëriñ bi di wax loolu ci rajo bi di jàppale Abdou Diouf sëñ Ablaat ca ngoon ga mu ne man duma wax dara di ko teg ci bakkan.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 man du wax dara di ko teg sama bakkan lu conseil bi gën a dur mu gën a kontaan ndax man buy dem man maay toog ci wetam nii ñu tëj ver ver yi tàngoor bi duñ bëgg a rey ndax moom bu climatisé day feebar oto bi Touba aller retour def nañ ko pendant 17 ans maa ngi moom chaque 3 mois ñu ànd. Abdou Diouf dafa muusoon ndax itam. Euh,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 xamul le passé xamul le futur mu ne li mu xam mooy ci saa si le présent nee na boo fekkee weer wu jot nga jox ko benn libidoor boo ko joxee libidoor bi weer wu jot nga jox ko benn libidoor nee na benn weer nga tëb ko nee na bu ko neexee mu ne la ah man de musuloo ma defal dara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 lan la yàlla di seeti lan yàlla di seeti wax la rek président Senghor moo wax ni moom bëgg na sëñ Abdou ko tax mu ni pa ngir lu nekk ci moom dana ko wone moo nu ko wax président Ousmane Camara ngi toog Maguette Lo mu ni moom bëgg na sëñ Abdou ndax daal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 دمي وأهلي وأولادي فداء له خمسا قديما له مستعمل سندا loolu ko ku bind deseeloo kooka len kon feene ci yonent bi kon bi zaman yonent bi natteer li wunu na ku ko jàpp rasulullahi nga jàpp ku jàpp rasulullahi yàlla nga jàpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa